dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i kaay gi di Sud Quotidien ak Vox Populi ñu xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm yi ba léegi bi wureegu la na ndax ñi nga xam ne ñu ko joxal Ousmane Sonko ay fiis parrainage ak clé USB cenn la fàll lànk ba sa naaj wa na ko Ousmane Sonko nekkul ci liste électorale yi ñi nga xam ne ñooy avocat ba pare wan leen yoon wi nga xam ne fi la war a jaar ndax nee nañu yéen waa Sénat am na liggéey boo xam ne yéen la war a bu leen nag direction générale des élections nangu wuñu jëfe li nga xam ne moom ngeen leen sant yéen am na loo xam ne yéen a ko war a bu boobaa ndax am ngeen sañ-sañ bi am ngeen pouvoir yi ba tey ci biir journal bi avocat yi Ousmane Sonko yi daan na ñuy wax ne ñuy a a Sonko ay fiches parrainage ñu ko ci liste électorale yi te ñi nga xam ne ñuy waa daaf ñoo ko si dugal yéen a kaay gi de la témoin xëy xibaar naan nan ñu yoon wi nga xam ne moom la Thiendella Fall jaar ak yoon wi waa daaf jaar yoon wooyee bokku la ndax waa daafa ñoom jël nañu Ousmane Sonko dugalaat nañu ko ci liste électorale yi yéene kaay gi di Vox Populi ak Sud Quotidien ak L'As xëy duñu xibaar nan ñu avocat yi Ousmane xam ne ñooy waa Sénat nañu waa bu baax a baax yoon wi nga xam ne fi la ñu war a jaar ndax nee nañu waa Sénat loo xam ne yéen a ko man am loo xam ne am ngeen ci sañ-sañ ndax ñi nga xam ne ñooy waa DGE yéen a leen ëpp pouvoir yéene gi di Walf Fadjri ak L'As xëy duñu xibaar

ginnaaw bi mu leen wanee ginnaaw génn gisante ak tas ko do xabaar la leen ayib dafay wax mooy jamono ji daal constaté nañ maanaam seetlu nañu ne banditisme administratif moo am maanaam wàllu wuyu moo am ci mbir mi ba tey ci biir journal bi délibération ñu fekk ko fa moom mandataire Ousmane Sonko bi daan nay wax ne lii nga xam ne waa direction générale des élections jamono ji ñoo koy def crime la contre la constitution loolee kàddu ayib dafay la yéen kaay taxawoon ba léegi buuse wu fa centimètre yéen kaay gi di xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum organiser élection présidentielle ndax na xel munta tey ci ki nga xam ne mooy Thiendella Fall ginnaaw nag bi ñu lànkee bañ a jëfe li nga xam ne moom la yoon santaane ngir ñu jël Ousmane Sonko jox ko ay fiches parrainage mu njaay siisee ci biir journal bi nee mbir mi jamono ji ni ñu ko gisee maanaam ay contestation avant élection ci biir élection yi après na fukki junni yoon na ñi nga xam na ñooy waa direction générale des élections ndax am na juróomi pouvoir yoo xam ne waa Sénat am nañu ko ci kaw DGA ndax waa Sénat ñoom am na sañ-sañ sax ay sanctions ngir nag ñu sanctionné waa direction générale des tamit ñi nga xam ne ñooy waa am nañu doole am nañu ay pouvoir maanaam jox ay ndigal maanaam jox ay ordre ñi nga xam ne ñooy waa DGA waaye tamit kenn la fal mën naa jël ay dogal ba pare ñi nga xam ne ñooy waa Sénat daal di ko si deltuloo ginnaaw waaye tamit ñi nga xam na ñooy waa Sénat am nañu sañ daal di wuutu waa DGA ci liggéey bi jëfal ko seen bopp yéen kaay gi di bés bi xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum parrainage bi jamono ji am na si ñoo xam ne seen bamba ma ngi ciy maase maanaam good fine ndax am na ñoo xam ne seen carte d'identité pour ñu jox la ko da nga leen jox lu toll ci 2000 francs wala nga jox leen lu toll ci 5000 francs am na kenn koo xam ne ma ngi nettali ci biir journal bi nee na lu toll ci juróomi téeméer ci fes parrainage la jaayee benn million la ko jaayee ndax nee na gars yi ay parrain leen soxal waaye man xaalis moo yóbbu sama kër moo ma yitteel yéen kaay gi di Dakar Presse xëy duñu xibaar naan ñu Amadou Ba ak ba mu demee ci diwaanu Mbuura jàppante bu metti moo fa ci militant yi nga xam ne ñooy jàppale Cheikh Issa Sall ak militant yi jàppale Sira Dia am na si ñu bari ñoo xam ne blessé nañu si yéenekaay gi di Direct fekk fa Amadou Ly nga xam ne mooy directeur général bu Akilee daan nay wax ne waa Senelec ji li nga xam ne moo leen dal mooy yorin wu bon nga xam ne moom la ñu yor kër gii di Senelec erreur moo am ci Senelec loolee wax ci compteur yi yéenekaay gi de La Tribune xëy duñu xibaar naan ñu xanaa ñi wu leen a fàtte xanaa ñi mi wuleen a fàtte xanaa a ak njombe girawaali gi nga xam ne moo amoon ci réew mi jëm ci xaalisu covid 19 bi loolee xanaa ñi mi wuleen ko fàtte journal bi nee na ci ñu fàtte ku la jëm waaye nekkul mbir moo xam ne dañu ko war a fàtte ndax girawaali la njombe la yéen gi di Verdict News xëy duñu xibaar naan ñu démb la njiitu réew mi di président Macky Sall doon inauguré makkaan bu yees bu état major de la gendarmerie ca Colobane yéen kaay gi di Le Soleil xëy duñu xibaar naan ñu bëgg-bëggu njiitu réew mi mooy gendarmerie am lu toll ci 35000 agents fii ak 2025 ba tey ci biir journal bi mu xëy duñu xibaar naan ñu njiitu juróomi di président Macky Sall daan nay dooleel ñi nga xam ne ñuy waa gendarmerie ba tey ci biir journal bi de Le Soleil mu xëy duñu xibaar naan ñun njiit réew mi di président Macky Sall niki démb ca ndajeema daan nay jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne mooy général Moussa Fall nee na ko tey la gën a am confiance ci yow nee na ko am naa fierté ci yow am naa satisfaction ci yow te yow Moussa Fall ku am rigueur nga ku professionnel nga waaye ku loyal nga yaa ngi def sa liggéey good fine vrai soldat nga loolee kàddu yi président Macky Sall la yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñun njiit réew mi di président Macky Sall dooleel na waa yi ngir nag ñu mën a taxaw jàmmarloo ak lépp loo xam ne jëm na ci wàllum terrorisme wàllum trafic de drogue wàllum pêche illicite wàllum cybercriminalité wàllum nit ñuy jëfandikoo réseaux sociaux yi yéen kaay gi de la Tribune xëy duñu xibaar naan ñu engagement bi nga xam ne force de défense et de sécurité yi am nañu ko njiitu réew mi di président Macky Sall niki démb daan na koy rafetloo yéen kaay gi de la Tribune xëy duñu xibaar naan ñu Barça wala Barça gi jamono ji bëri na xam ne ñoo nga ci ñàkk seen bakkan xale yi te gis nañ ne ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew dañu ne pat pataaral ci mbir mi maanaam dañoo dem ba tële ci la wala nag daw seeni responsabilité yéenekaay gi di sunu làmb ci xën mu njëkk ma ñu fekk fa Modou Lo nee na jamono ji saaga yàkkamtee xeex la ma ngi xaar Ama Baldé de pied ferm